salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaan suba jàmm foofu waaye mën a nekk ci réew mi ak ci bitim réew ki wax ak yéen di seen mbokk seen ma réew ak Akhenaton doon euh, bëggoon a partager maanaam weccoo ak yéen xew-xew bi nga xam ne ma nga xewee Tiwaawoon euh, ñeel jumaa jooju nga xam ne moom lañu fay tax tabax muy jumaa ju mag jooju nga xam ne moom la ñu tàmbalee tabax boobu ba léegi def na ay lu mat fukki at wala mu ëpp ko. ay ati ati at ëpp na fukki at sax ndax jumaa jooju ba ñu ko tàmbalee bu toll ci ñaar fukki at wala fanweeri at léegi mu àgg ko léegi nag jumaa jooju dañoo nekk di ko tabax ci ñaq doomu aadama yi di yalwaan di ca def ak di def ay pexe di ca def ngir mu àgg eh, bu yàggul mat na weer bu ngeen seetloo defoon nañ fi am ndaje ci télé yi di yalwaan di laaj nit ñi kenn ku nekk loo am nga def ko ci pour ñu mën a àggale jumaa ji xam naa li ko sababoon mooy bëgg a jumaa ji balaa gàmm gi di ñëw ndax gàmm gi xam naa li ki des bareetul lu fii weer lu mu bari bari daañu gàmm Tiwaawan xam naa comme par exemple Touba xew-xew yi moom at Sénégal moom noonu la bu ñu noppee nag dugg ci yu ndaw ndawaan yi gàmm yu ndaw yi cant yi gàmm màggal yu ndaw yi cant yu ndaw yi maanaam at mi lépp sénégalais yi ci loolu la ci xew-xewu gàmmaki ki màgg ki ki ci yooyu ngeen di dund guddi bés bu ne li réew mi liggéeyuñu euh, loolu moo indi ndóol gi nekk ci réew mi ndax xew-xew yi kenn liggéeyul accident yu bari yi oto yi dem ba dikk bi Touba Tivaouane Ndiassane Yoff kenn ku nekk bu ñu noppee cheikh yeeg muqaddam yeeg kenn ku ci nekk sa bis ku ne am nga bis seddu nañu bisu at mi yëpp ba at mi kenn du ci liggéeyati loolu it moo indi corruption bi ndax foo demit da nga joxe enveloppe da am loo leen seete da nga jox ñiy organiser événement religieux yi dañuy joxe ay enveloppe ay soutien ci bureau yi ci euh, entreprise yi ci euh, commerçant yi kenn ku ci nekk am loo joxe parce que noonu la réew mi tëddee réew mi corruption ko lal xew-xewu yi ci corruption lay dox lépp moo tax koo ci jox kees mu këpp ko ci nguur gi moo tax ñëpp yi sàcc parce que xew-xew yee bari te teraanga yi koo wax mu ne teraanga teraanga ak social teraanga social teraanga social mooy suuxat ab corruption ci réew mi tant que loolu jógu fi koo fi teg ci place boutique tool euh, lépp luy génn xaalis boo ko fa tegee ci gouvernement mu sàcc ko yóbbu ko ci yooyee wala mu takkee ko ay jabar jumaay Tiwaawan ji ñu ne dañ koy àggale daje ca daje ca télé yee dañuy ut ko waaye am na ko joxe am na ñu joxe cinquante millions ñi dix millions ñi gis ngeen ko bu yàggul weer Aziz Ndiaye àndoon na ñoom ñëpp ñu toog ci tele ba Sénégal gi àdduna bi yëpp di leen xool ñu ne benn million la ñu bëgg benn mil benn milliard ñu ne benn milliard la ñuy wët ñuy woote nit ñuy joxe di joxe di joxe ba mu àgg ci ñetti milliards benn lañ bëggoon ñu am ci ñetti milliards pour jumaay Tiwaawan ci pour àggale ko xaalis boobee mbokk yi tey moom lañu ne ci biir ñoom ñi ko yore xaalis ba dafa manqué benn milliard am na ku ci jël benn milliard wala boog ñu ci jël benn milliard ci seen biir muy tuuma lu rëy Tiwaawan a ngay toj. xaalis bi nga xam ne dafa feebar am benn paralysie partielle tuyaawoon bañ ko ko waxee tuyaawoon def na nañ ko yëkkati ndax mënut a jóg dañ ko yëkkati dugal ko ci oto mu génn tuyaawoon ndax mer gu mu ba futt ma nga ndakaaru fi mu toll ni dem tëdd ndax mere leen mere ñetti ci lañ doon la ñu jot ci bi ñuy ut xaalis bi ci tele bi ku nekk joxe ci benn milliard bu ñu doon ut ñu ñu am ci ñett am ci seen biir benn wala ñeen ñoo xam ne rocc nañ ci benn milliard téye ko dem ak moom muy coow lu ci jumaay Tiwaawan ji tey waaye lii nag dugguleen ndax dajale woon nañ fi xaalis aussi lu jiitu lii doomi xalis bi ñuy wax Moustapha si ne woon daf ci am deux cent milliards deux cent milliards ñaar téeméeri milliards yoo xam ne deux cent millions ngeen jégal ma deux cent millions ñaar téeméeri yoo xam ne daf cee manqué woon dafa réer doomu xalif bi ñuy wax Moustapha nga xam ne moom mooy baay bi ma nga ci biir na rëjji toog ci biir comité ba nga xam ne xaalis bi moo koy yore lu ñëw ci loxoom lay jaar doomu xaalis bi comme lépp affaire ndonu la ku dee sa doom donn la boo nekkee xalif sa doom mooy dogal lépp affaire famille la parce que du diine duñu xool boroom xam-xam yi ak ñu jub ñu ñu jiital leen ku ci nekk boo toogee sa sa njaboot ngay jiital ak say doom ak say mbokk comme looloo fi am système la ma mafia ci waawoon gi deux cent millions mas naa réer ci alalu jumaa ji te bi ñu ko laajee dañoo wax ñu ne doomu xalif bi di Moustapha Sy moom moo ne woon xaalis bi dafa réer loola siiwul waaye tey benn milliard moo dem ci ci ñetti milliards yi kon duguleet lii nag mbokk yëpp war nañ koy yëg si àdduna bi yëpp ndax ñoom bu ñu soxlaa xaalis dañuy woote ñëpp yëg ko ku ci am sa dërëm nga def ko ci kon ñaq askan wi la ñu di ko def ci jumaa joo xam ne da ngeen ne jumaa jooju ngir yàlla la kon yàlla la ñuy defaral bu askan wi nag di dajale seen i dërëmi dërëm di ko def ci néegu bi yàlla am ñoo xam ne dañoo sant si wala ñu sant mbàkke wala ñu sant caw wala ñu sant ñes wala ñu sant yu kenn xamul bu nit ñi dajalee seenu ñàq di ci ut yàlla ak ngërëmal yàlla di ko def ci néegu yàlla ñoom ñooñee sa borom sant yu seer yi di ko rocc di ko lekk di ko randal dafa jaadu nit ñi xam lépp ñu siiwal leen ba ñépp xam ko ba bu ëllëgee bu ñuy wootee te ci ay yu mel noonu ngeen bañ cee def seen i dërëm ngeen bañ cee def seen dërëm man bu ngeen gisee du ma def sama dara parce que dama leen a xam jumaa Tiwaawan ji léegi mu àgg ci ñaar fukki at ak lu topp loo fa mas a def ci xaalis lekk nañ ko ay wuyu ñoo toog sant si nekk ci biir kër gi di ko lekk di ko dunde nappaajo ji ay jeeg jumaa Tiwaawan ji Tuubaa ji kasaalik Masaalikul Jinaan bi ay milliards lañ ci sàcc Masaalikul Jinaan bi jumaa Tiwaawan ji jumaa Tuubaa gi tamit kasaalik réew mi nit ñi dañoo tàmm toog ne nong di dund ci dii diine kenn du ci dund diina yàlla ji yàlla wàccewu ko pour nit ñi di ci dund ku bëgg dund dangay ngay liggéey kon jumaay Tiwaawan gi ko ñëpp xame noonu ñetti milliards yi ñu dagale woon nit ñu dagale ko sàcc nañu benn milliard ba ne may nga mer daa génn Tiwaawan yàpp ko ci oto ndax mënatu la dox ñu yóbbu ko Ndakaaru ne nañ ma génn dëkk bi ndax gàcce ak mer gu mu mer ba futt moom euh, Serigne Babacar Sy Mansour ma nga ci ma nga na Tiwaawan na ko ñëpp xam na ko ñëpp ñax nañ leen delloo seen xaalis ndax alal ji ñoom moomuñu ko askan wi koy dagale di ko jox ngir bëgg ci ngërëmal yàlla ñu sàcc ko lekk ko ñetti milliards lañu dajale sàcc nañu benn milliard ba tey lu jiitu loolu def na ay weer sàccoon nañ fa deux cent millions sàcc rek ci la dund na ko ñëpp xam moo tax ma def vidéo bi bëgg ngeen tasaare ko di leen nuyu leen ziar di wax ngeen yeewu mbokk yi yeewu leen yeewu leen ci sëriñ sii sëriñ si ay bandi lañu ay wuyu lañu dañ leen di dundee ci turu yàlla joo xam ne gëmuñu ko gëmuñu yonent bi gëmuñu bisu penc gisuma gëñu gëmuñu yowmal xiyaam gëmuñu ne safara am na gëmuñu ne ajjana am na seen yoon nag toppatoowuñu yàlla bëgguñu ko toppatoowuñu ak yonentam fonkuwuñ ko gëmuñu lislaam ñu lislaam li ngi nekk du dëgg ay naxaate la ak i tappale nit ñi yeewu leen bala ngeen a dee ci lii di tàbbi safara da ñàkk seen alal ñàkk seen dund dee ànd ak ñoom tàbbi safara parce que ñii duñu ay nitu yàlla gëmuñu yàlla nitu yàlla day jub nitu yàlla day bëgg dëgg nitu yàlla day bëgg lu sell nitu yàlla day maanu nitu yàlla du lekk alalu mbooloo asalaamaaleykum ak anetoon partagé leen ko mu yaatu fépp ko ñëpp yëg